ministre ci déclaration de politique générale. Hmm. yaa ngi doon xaar loolu yow DPG bi. Hmm. ndax est-ce que yaa ngi ko doon xaar. ndax maa ngi doon xaar. waaw pour mu def ko. Hmm. dama gëm ne li ko constitution may sant ko ko mooy mu dem def déclaration de politique générale mais moom Ousmane Sonko dafa préféré ne am na problème ci règlement intérieur bi sañ-sañam la il faut ñu nangul ko ko aussi je suis tout à fait en phase avec lui. je suis tout à fait en phase avec dañu war a sopparñi kon luy problème bi kon. mais dañu war a sopparñi. règlement intérieur assemblée nationale. Ah. buñ ko sopparñee. waaw ah. léegi lan mooy problème bi du ñoom woote nañu laaj conseil constitutionnel ndax mën nañu tas assemblée bi ma ne leen loolu jarul laajte nit benn yoon lañ lay ngénte bu ñu falee député yi président day wax ne. séance inaugurale bi tel jour la waaw ci séance inaugurale boobu kay loolu kay mooy dat bi ñuy jàpp ne. mooy 12 septembre. 12 13 septembre. 13 septembre kon mën nañu tas mais bu ñu tasee tey assemblée bi 13 septembre. session bu ñu ko tasee bien avant nag muy le 31 juillet. mun mënuñu ko tas le 31 juillet loolu laa lay wax jarul laajte jarul laajte. non xam nga aussi loolu am na am na am na am na gis-gis. yu wute ah, dégg naa Aminata Touré dégg naa na Touré mu wax ko jox ko argumenté ko aussi. Pape ma ne waaw. lu ne fang kenn du ko jeex amul lu ñuy waxtaane gis nga ñi def droit ci réew mi problème yu réew mi yëpp ñoom la parce que problème yi ñu mus a am Sénégal yëpp interprétation droit la alors que dañuy wax nul n'est censé ignorer la loi. tekkiwul ne ñëpp dañoo war a jàng droit déedéet dañ ne war naa yomb ba ku nekk mën koo comprendre moo tax ma ne la ngénte benn yoon lañ lay ngénte séance inaugurale benn yoon lay am bu ñu falee député yi et séance inaugurale boobu mooy jour bi ñu falee député yi jour bi ñu leen installé assemblée nationale donc bu ñuy tas ñëpp méngoon nañu ci ne bu président jëlee responsabilité pour tas assemblée le 13 septembre la koy tas waaw léegi nag mooy bu tasee assemblée mooy assemblée dee na session budgétaire bi kañ lay commencer. bu xasee dee kay xamatuma ko. non dama ne session budgétaire bi kañ lañu ko prévoir mu war a commencer. du du le 15 octobre. kon moom lu muy def bu boobaa day dellu. ci budget bi nga xam ne moom la ñu voté woon en deux vingt quatre. mu def ordonnance rek. du du nekk ordonnance loolu lay loolu lay maanaam dadul am nouvelle disposition yoo xam ne dañ koy jël mais moom dañuy delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu voté woon en deux mille vingt quatre est-ce que jar na ko loolu responsabilité am la mais man jàpp naa ne assemblée bii nga xam ne moom moo yokkoon mandat Macky Sall assemblée bii waru fee des. assemblée bii nga xam ne ñoom ñoo indi amnistie ci Sénégal non assemblée bi war fay des. mais yaa ngi ko wax ñaari wax di suñ ko fi bàyyee baaxul buñ ko fi bàyyiwul baaxul. non dama ne. amee ah, li ngay wax nii li ma li ma wax dafa leer wax ci budget bi moo ma li ma li ma wax dafa leer. waaw dama ne bu fekkee ne voté voté wuñu budget bi. waaw du tee moom président yoon may na ko. mu jël budget bële. utiliser budget bu 2024 yoon may na ko ko. ah mais xam nga loolu da nga baax. non non dama ne yoon may na ko ko waxuma baaxul dama ne yoon may na ko ko. Ah. moom mooy jël responsabilité mais ce qui est clair mooy ne man jàpp naa ne assemblée bii yokkoon mandat Macky Sall ba décembre 2024 assemblée nationale bii nga xam ne moom moo yokk indi amnistie ci Sénégal no jàpp ma ne assemblée bi dafa war a des. et nag tey jii am na beneen taxawaay boo xam ne am na ci réew mi loo xam ne leneen lu bees war naa ñëw moom moom premier ministre lu mu waxoon sénégalais yi moytu leen nit nekk président ngeen jox ko réew mi jox ko assemblée mais dañ koy expérimenter ci moom kenn du leen jox assemblée danañ ko jox opposition bi pour que opposition bi mun a veiller ci liggéey bi ñuy def ñoom. moom Ousmane Sonko moo taxaw jàkkaarloog Sénégalais yépp ne leen waruñu jël doole gi yépp jox ko président de la république jox ko assemblée jox ko réew mi waaw la valable woon ci Macky Sall moo valable ci ñoom kon dañ koy expérimenter ci ñoom moo tax may wax ne opposition bi nañu nekk benn say. ñan ñooy opposition bi. l'opposition en général ñi àndul ak nguur gi. ok ñëpp ñi nga xam ne ànduñoo ak nguur gi laa ciy dégg. mais dama ne. man de yow rek laa ciy ñi àndul ak nguur gi bari nañu. man de yow rek laa ciy dégg mais ñi àndul ak nguur gi bari nañu. nañu jël boole seen doole nekk benn say jàkkaarloo ak ñii pour mën a surveiller nekk sentinelle par rapport ak le travail qu'ils sont en train merci beaucoup. jërëjëf Pape Bougane ma gërëm la.